wajalilaayi maskani tuubaabaat misrame abijaayi xayri man abaat Touba ca kanam Serigne Mountakha Mbacké yee salaat ndigal li bi nga xam ne ne feet li waat na ak laxasaayam ngir ànd ak Touba ca kanam. nee na àndoon ngeen ko nopp waaye yéen a koy ànd ba faaw. fii ñu toll nag dafa fekk sama laxasaayam. nee na fii ñu toll nag daa fekk laxasaayam. fas ko yéene ànd ak yéen. Sëriñ Muntaxa Mbàkke di xamle ne ci la ëpp yaakaar ci bépp kuréel gu mës a sosu ci biir dëkk bu sell bi di Touba. nee na mbooloo mu mës a dégg. ci mbooloo mi gën a am yaakaar. liggéey sëñ moom ñëpp la war wàccu kenn ñoo ñëpp a ci am ndax ku ci ne loo ci jëfut rek ku ci loo ci jëfut rek doo ko ci am yàlla na suñu borom dimbali leen ci. ba positif bi ngeen ko tàmbalee rek mu àgg fi ngeen ko bëgg mu àgg fi. mu doon njëriñu nit ñi. te njëriñu nit ñi mooy njëriñu suñu borom. sa la lay dig weer wu jot nga joxe ñaar téeméer ngir yaatal ko nag ubbi nañu leen ay compte ci mbooleem banque yi moo xam muy BICIC CBAO CNCA IBA banque islamique wala ngeen jaar ci Tigo Cash ci 76 268 28 28 wala Orange Money ci dièse 144 dièse 621 dièse képp ku ci bëgg lu la gën a leer mën ngaa woote ci 78 33 wala 33 978 25 37 ak Touba ca kanam yàlla na ñu sëriñ bi boole ñu bokk ci ñi dëkk bu sell bi di Touba ca kanam